Jawa Zero TV dan Global News. ku mën na def ku mën na def sëñ Jili moom maam Thierno moom la way juróom bu baax wi di seet si noonu maam Thierno Ndamal Daaru moom moo nekk nii kaseet ñëw fii kaseet ñu dinañ ko dikkal mu ngi noonu maam Thierno Birahim maam Thierno moom moo ñëw kaseet tey mu ngi noonu ñu koy accueillir accueillir bu am solo mbooloom kaseet lépp ñu ngi génn macha tabaraka wa taala macha jar na ko sëñ jar na ko sëñ jar na ko sëñ jar na ko sëñ jar na ko sëñ jar na ko sëñ yokku na ci kaw ci kanam jiili jar na ko maam Cerno jar na ko kaseet a ngi weex tal ndax sëñ jiili Mbàkke mu maam Cerno sëñ jiili maam Cerno moo weexal taseet tal mi ngi noonu di ñëw ànd ak bu tedd bi sëñ jiili mi ngi noonu ànd ak baayam bu tedd bi ma ne ko sëñ jiili mu maam mi ngi noonu ànd ak baayam bu tedd bi ànd ak ganam yu tedd yi sëñ jiili ngi noonu ànd ak bu tedd bi sëñ jiili mu maam Cerno mi ngi noonu ànd ak bu tedd mu ngi noonu gan yaa ngi noonu kon nag mu jeex tàkk sëñ jile ngi noonu sëñ jile ngi noonu sëñ jile moom maam Thierno mi ngi noonu Mbàkke jar na ko sëñ jili ngi noonu sëñ jili moom maam Thierno mi ngi noonu ànd ko sëñ jili moom maam Thierno mi ngi noonu jërëjëf jar na ko jar na ko déggal lii kooku Tidiane la Serigne Moundiak moo nekk noonu Serigne Moundiak moo nekk noonu Serigne Moundiak a ngi noonu dugg si mu ngi noonu Serigne Djili Ndiaye ngi noonu ñoo ñëpp ci mbooloo mi lañ mu ngi noonu kon nag ñu xam mu mel ni rek tey jii taseet fees na dell ba sànni mbatt mu tàkk gars yi kontaan nanu gars yi kontaan nanu Njogoze TV na Miro Audios.